Ousseynou Diop. Mhm. Ousseynou mën nañu xam fan nga jógee ñëw fi ngir voté. bon maa ngi jógee fii rek euh, c'est pas très loin euh, après école bi nii rek ci kanam. Mhm. Mhm. Euh, naka vote bi j'espère que ça s'est bien passé. waaw ah, ça s'est très bien passé bon pour le moment encore hein, je peux dire que par exemple nit ñi ñëw nañ ñu ngi def un devoir citoyen wala droit exercer ses droit euh, je pense que tout se passe très bien pour le moment et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du scrutin. Euh, bi nga bureau de vote bi amul manquement. bon j'ai constaté aucun manquement hein. les gens ils ont ils vous accueillent naturellement. Euh, il vous indique ce qu'il faut faire. Si vous ne savez pas, alors vous, vous, acquittez de votre droit euh, tranquillement. Quoi. Et c'est OK comme ça, quoi, je pense. Non, non. Euh, pratiquement comme vous voyez, rang est baréoul, bureau pratiquement, il n'y a pas de langue au bureau. ni ñi ñu ngi ñëw euh, peut-être y a pas encore affluence y a pas encore ruée peut-être ci kanam mën nañ xam naa jeunes yi aussi comme ils ont dit euh, ils ont passé la nuit dehors peut-être ci kanam la ñuy message booy bu may lancé mooy euh, on a trop parlé durant. pratiquement des années que de voir tout le temps je le dis souvent le Sénégal est devenu un peuple de de de parleurs wax ji gars président def na comme je dis souvent ils veulent savoir ce que lui-même il veut ils veulent le savoir mieux que lui c'est ça le problème du Sénégal chaque fois, il veut faire ça, il veut faire ça. Finalement, on est arrivé au, aujourd'hui. jour J, à terme de tous ces débats-là. les gens euh, poursuivre affaire ni mu demee ni ci cède, mu continuer keroog ñuy tàggoo ko incha allah. maay Père bu Guédiawaye. wala Père Diaw bu Balla gay Père jaw euh, naka nga nemmee ko euh, vote bi fii ci école 16. niñ ko nemmee ko mooy di sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di gërëm yàlla bu baax ci may gi mënu may ñu fekki ko di sant bu baax ci ni ñu juddoo ci réewum senegal di ñaanal waa Tivaouane di ñaanal waa Touba. di ñaanal Laayeen di ñaanal kilifa diine yëpp di ñaan bay ñaanal chrétien yi di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan ci pot bi jàmm di wax rek ni lii lu rafet la bi ngeen ñëwee ci école 16 ma ngi dal ñu wane ni ñun ñëpp léegi am na nañu niveau bu toll ni xam lan mooy vote vote buñ koy mooy mbañ gàcce soo ñëwee am sa quarante dëkk ci gox mu mel ni Géejawaay fi nga war a voté di école 16

am na nu géej am na nañu dex am nañu naaj am na nu càmm am nañu napp li may ñaan mooy président bii di ñëw mu góor góorgóorlu ci ndaw yi mu jàpp ci càmm gi ñu téye géej gi ba bu ñu tëmbee mën a am jën nu toppatoo mbay mi toppatoo ndaw yi toppatoo njàng mi jël alal ji delloo ko ci biir réew loolu moom la ñuy ñaan président bii di ñëw ndax dafa jot coono bii sénégalais yi nekk li dee ci géej gi kenn xamul nu mu toll ñu dee ci désert bi kenn xamul nu mu toll ndax dara gënul métti nga yeewu jàkkaarloog say waajur ñu jur la fi nga war a juree nga màgg ba war a tekki mënoo def mënoo dindi heure bu nu xëyee ni la doomu diw ji tekki na loolu moo waral xale yi dugg ci gaal yi. ñiy dem ci àll bi li ñuy ñaan président bii di ñëw alal ji nekk ci réew mi na ko gérer delloo ko ci ndaw yi toppatoo njàng mi indi jàmm ci réew mi yorom nit ñi dund gi yomb courant yomb ndox yomb jàmmam ci réew mi loolu mooy moom lay wax waa Dakaractu ndax loolu mooy suma wareef man ko war a jàmm laa ndax jàmm amul lu ko gën fii amul lu ko gën fee mais école 16 nag école bu dal kon euh, voté go ba légui wa maa ci sama rang dafa am ci kuma top té respect bi moy soo ñëwee gis say nawlé taxaw ak lo doon doon autorité le moo autorité moy ko am ak ñëpp jàmm man ko gis sama image rek xamni kilifa géejawaay la bo ma séné may dox rek géejawaay moo taxat di dox kon ma ngi ñaan ci vote bi jàmm di ñaan dal président bi di ñëw le fait que awuma droit tout de président bi nga xamni mom la bëgg mu falou waaye ku ni ma jàkk xam ki ma yéene waaye daal maa ngi ñaan ci réew mi jàmm te sénégalais yi nañu conscient xam ñu nu war a jox réew mi am na ñoo xam ne xel yëpp daje nañ fa te ñooñu bu ñu yoree réew mi jàmm doon am ci réew mi ndaw yi demoon États-Unis dellu si ñi demoon Italie dellu si ñi demoon Espagne dellu si am réew waa réew ma ñoo ko mën a defar kon maa ngi gàttal suma kàddu foofu jërëjëf jërëjëf